téeméer ak juróom fukk ci ay tonu ciment la jël moom maire bu Mbàkke Abdou Mbàkke Ndaw juróom ñett fukk ya mu jébbal ko Baay fal yi nga xam ne Sëriñ Muntaxa moo leen sas nu tabax kër Sëriñ Tuubaa fi nga xam ne moo nekkoon ci ay jamono stade bu Mbàkke ginnaaw bi nga xamante ni euh, liggéey nañ bu liggéey metti avant ñu doon maire pour stade Nelson laa nekk kër Sëriñ Tuubaa yàlla dogal ñu doon maire Cheikh mun Muntaxa ñëw mairie bu Mbàkke te itteem moo doonoon fii stade bi nekk ñu dakkal fi football bi def ko kër Serigne Touba. bi Serigne bi ñëw ci mairie bi rek ba wax li mu bëgg rek conseil municipal bi ñoom ñëpp lañ ci ànd ñu def délibération préfet bi approuvé ko ñu def commission de l'urbanisme euh, service technique yëpp li leen ci war ñu def ko ci ñu defar baay bi ba keroog titre foncier bi génn ñu jëbal ko sëriñ bi. li nak yalla mi ngi ko jagleel Abdou Mbacké Ndaw ak conseil municipal bi nga xamanteni ñu and di liggéey ci njëlbeen nga andi andiloon nañ leen bari barigoy ciment muy 100 tonnes andi nañ ndox mi andi courant bi di ci taxaw tay dik nañ indi quatre 80 tonnes du ñet ñetti bari barigo bu ñu jógee fii ci kër sëñ Touba gi ñu ngi fas yéene dem ci jumaay Tukulóor yi yóbbu fa fukki tonni ciment ngir jàpp ci mbaar mi fay defar buñ fa jógee ñuy dem jumaay sëñ Mbàkke Ramata parce que yóbbu yóbbu fukki tonni ciment ngir jumaa ji ñuy defaraat suñ fa jógee ñu ngi dem gaawaan ci kër sëñ Moustapha Ceytu ci liggéey bañ fay liggéey ñu jox ñu fukki ton buñ fa jógee it danañu dem Daaru Salaam yóbbu fa ñaar fukki ton ci liggéey jumaa ji ak yañ fay liggéey fii ci Mbacke Xewar it gis ngeen bàpp gaa ngi nii ñu jàkkaar lool def nañ ci xaalis bu bari ngir ñu miirewaat ko miire bu rafet ci barke Maam jaar Jaara Borom Sam muy jëf ju waa kër maam Cheikh Rafal rafetlu lool taxit ñu yëkkatee kàddu delloo njukkal ab du Mbacke Ndaw nee barki démb rek doon ubbi. lan doon ubbi. poste médical. poste médical. bii ci sama ginnaaw kër. bii ci ginnaaw kër sëñ Saliou. mu defal ko kër Cheikh Ibra. mu defal ko kër Cheikh Ibra Fall. ku ne jaar nga fi nekk jaar nga fi nag. amuñu ko. te amuñu ko. sunu masaan faju ji. sunu masaan faju ji. danoo jéggi raay bi. dem biir Mbacke. dem biir Mbacke. wala dem Daaru Salaam. wala ñu dem Daaru Salaam. wala feneen. wala feneen. indil nañu ko. Abdou Mbacke nag indi na poste santé bi. ñee ñu ngi koy santit di ko gërëm di ko gërëm. lii mu indi fii tey jii. leelu nag lii mu indi tey jii. yàgg na ko fee indi. yàgg na koo indi de. ndax liggéey bi tàmbaliwul tey. ndax liggéey bi tàmbaliwul tey. kon yàgg na ko fi indi. kon yàgg na ko fee indi. ndax sëriñ bi yorul lu wax di maye. yorul moom it lu muy maye. yorul it lu muy able. lu muy jaay la yor. lu muy jaay nag. ku jënd yaa ko moom. waaye luñ la abal baa may la ko. suñ la meree. manees na ko nungu baa ñu weddi ko waaye li nga jënd moom kenn mënu ci dara sëñ Abdou Mbacke Ndaw mii nag lii fi sëriñ Touba indi ca jox ko Cheikh Ibra Fall sëñ Abdou Mbacke Ndaw jënd na ci lu wér a wér a wér ndax ba njëkkee tàmbali liggéey bi indi woon na fi junniy bërigoy ciment bi mu ñëwaatee muy indiwaat na fi tey juróom-ñetti téeméeri bërigoy ciment ma manga nee taxaw nee lool nag. du ay wax jëf la ci liggéey bi ni liggéey seigne touba nak am ci cër bo xamni da ko yor fi ci Mbàkke Bawal ci bëgg cër boobu nak saxaat yokku wat bam am ci lim bëgg ya kon nak fi nga xamni ne kër sëñ Tuubaa la kon nag fii nga xam ne kër sëñ la Cheikh Ibra Fall di ko liggéey njabootu Cheikh rafal gep ñoo ngi maase ci and ci ndigalu sëriñ Cheikh Jëmb Fall di ñaanal sëriñ Abdou Mbacke Ndaw mii li mu bëgg sëriñ Touba defal la ko ne lii mu def nii tey lu ci gën a yell amul ndax maam seex Ibrahima Fall mooy buntub yoon wi mooy baabul muridiina lu ci waay am war nga koo sant Cheikh Ibra Fall. jotaay bi amee woon ci kanamu kilifa yu takko takku bokk ci Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacke moom mi nga xam ne Serigne Mountakha Mbacke moo ko fa yabaloon. sëriñ Basiru mu si Abdou nag nee moo ko woo bërki biig jox ko ndigal lu bàyyi ko ci sëriñ bi wax ni sëriñ Abdou Mbacke Ndaw mii ñu dénk ko dëkku Mbacke Bawol bi mu di ko saytu nee ko liggéey bi ak barab bi sëriñ Abdou Mbacke Ndaw mii yàgg na ci am taxawaayu rafet nee am nag jëf joo xam ni da ko bëggoon a indiwaat tey jii nee Cheikh Bassirou boole leen nag ni ko na ànd ak moom ñëw fii ci ñun ngir mu jébbale liggéey boobu ab Abdou Mbacke Ndaw di wax ne am na yeneen i mbébét yu jëm ci yeneen i béréb ci dig digal bi